man la Mamadou Samb. je suis le délégué de quartier en fait. ñu ngi sant yàlla. di gërëm ñëpp di nuyu ñëpp. di rafetlu teewaayu ministre bi. parce que lii yombul daal ci quartier bu demee ni parce que quartier bi dafa nekk quartier boo xam ne bi presque am na pendant plus de quatre-vingt-dix ans. mu nekk ci diggu dakaar te amul loo xam ne lii dëkk dëkkuwaay yëpp am nañ ko mu assainissement mu njëkkoon nekk suñu problème depuis bi ñu fi nekkee ba léegi. Mm. mooy si toutefois nawet am rek foofu moom catastrophe lay nekk te lii nag du lu ndaw. du ndaw daal si ñun bokk si ñun parce que defal nañ ñu dara duñ ko di defal nañ ñu dara. moo tax nag ñi ngi nuyu di gërëm ñëpp commencé ko ba ci président Macky Sall parce que ñi ko fi teewal ñëpp koo ci gërëm rek ça veut dire ci moom nga dal. kon nag ñu ngi koy gërëm bu baax di ñaan yàlla lii mu def fii daal xëy na ñun ñoo ko xam daal. Hmm. njariñ gi ñun ñoo ko xam. bon di nuyu tamit ki ko fi teewal mu monsieur le ministre ak ñi ko fi représenté woon ñëpp mooy tel que maire maires qui ont ak ñi ci liggéey yëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm bu baax a baax a baax en tout cas di leen wax daal ne leen ñun kontaan nañ bu baax a baax a baax a baax ci lii parce que c'est quelque chose pour nu waaw di la wax nag li ma waxoon euh, monsieur le DG saako di ko gërëm bu baax ne ko lii du lu ndaw moo tax ñun ñi fi dëkk dinañ ko sàmm bu baax a baax a baax parce que intérêt bi suñu intérêt la ñun daal donc ñu ngi sant di gërëm bu baax di rafetlu teewaay ministre bon ñu ngi sant yàlla di gërëm président de la république Macky Sall ci projet bi yi nga xam ne doléance la boo xam ne si ëpp na ñaar fukki at ñu amoon problème mu assainissement nga xam ne ndox mi da daan génn ci mbedd mi di dugg ci kër yi dugg ci marché bi loolu nag problème problème bu doy waar la woon nekkoon vieille doléance kon bu président Macky Sall taxawee ba def ko duñ def lu sant ko gërëm ko jaarale ngërëm loolu ci ministre bi ak préfet ak directeur ONAS loolu tey ñun ñoo doon dund métti woowu tey jii quartier bi yëpp macha allah branche la nañ leen amatuñ benn problème kon dañ sant yàlla rek tey sant président Macky mooy sàmm ko jéem a taxaw ci entretien bi kenn bañ ko sabooti kenn bañ fa def mbalit. ndax lii ñun lañ ko defaral ndax ñu ñoo amoon problème suñu ay toilettes suñu ay problème kër man chaque jour dañ ma daan woo may woote onage pour ndox mi wàcc dugg ci marché bi kon bu loolu dañee loolu ñun lañ ko defaral kon ñun vraiment suñu xol sedd nañ ci ñu ngi gërëm président Macky Sall di gërëm ministre bi di gërëm waa ONAS di gërëm ñi nga xam ne teew nañ fi ñoom ñëpp daal waaw loolu daal lañ lañ ci mën a wax macha allah.